hôtel Kalaojilak au plaisir des femmes Glam Glam Couture Thiaw application ñoo leen di may kooru Maam Xaan ak Kole soxna Kole hmm, bébé ah, maa ngi ñëw àgg ca conférence ba la waay conférence nga jëm waaw ah, jëm ne tàndarmay ji yow tam heure bi lan nga may ah, tàndarmay heure bi fu mu jëm yow xam nga lan la yow dafa mel ni fi mu toll nii man sama jeeg da nga koy werante man du ma jeget jeeg laa lii di ko xool naan tàndarma la waaw lii lu doon kii di gawe gi nga xam ne dama ko xooj gawe xam ne xooju daaw la ba ren. ah goowe. tamit doo ko xaar ba ca man daal man man daal man daal man waaru a man. la. ah déedéet ni picc yi def ah, noonu nga ma bëgg a def yaa ngi cëb cëb ci sama ah, kii yi rek xamoo heure boo war a mën a yor goowe tamit heure bi du heure goowe yor tamit. ma arrêté la. ah tey da ngay def si gawe doom bi. waaw tëmbalal ma si sa biir poos ah pour léegi. foo mu ñu xam ne jéega la yore nag. ndax xetu jeeg na dafa war a special spécial. nekkatuma mineur nekkuma jeget jeeg laata duma jeegantu jeeg kat ziga du ay fois bébé dugalal ma ko fii dugal ko gos gauche wala droite boo koy laal def ko ci dënn bi def ko fii. lii man ni ma nar a yow lii daa metti xam nga tamit ah man ah takkam ah, moo lay def loolu ne mën na maa jëm ci conférence. Ramadan li ci ah, li ni mu mel nga bëgg a ñëw jël xet gi dugg ci ci ah, ci conférence bi nit ñi woor. arrêté li ngay dem ci nekk yow dinoo ñëw Lindamière nga war a toog ak man ñu xàppi belli defoo ko nga ne dangay demaat ba caaruñ conférence dama bëgg booy dem nga dem ak rigueur. am noo demee ñu xamante ne ni ñu ngi woor waaye ñu ngi vacance ba mu neex Lindamière la nekk nag yow tamit. waaw xam naa Lindamière bi moom bu ma juum ci Almere lay mujjee ndax xam nga. Ah, déedéet dafa ndànk rek ah eh, Lindamière bi Almere laay mujjee ndax gis naa la démb. nga def loo xame sa ndigal yi def nga ci loo xame xamee woo ramadan ak weeru weneen wu dul a ah, weeru ramadan déedéet déglu rek déglu rek. waaw balaa xëdd tekki naa ko. waaw yow mën na noo karmat démb bu ma la toppoon karmat bu ma la toppoon duñu xëdd dañuy karmat tekki wàññi li ngay def sa ndigal yi te noo ne ci weeru koor man man damaa xamul ba ci sa jabar lan moo ci nekk sa jabar weeru koor ba ci sa jabar yow lan la munoo bàyyi bu guddi nga ngay rappi rappi naan ma naan lu ne nga ma koy wàññilu bàyyi ma ma takk li ma war a takk ndax si ma indi yëpp bis bu ma ko takkee valise laa la tegal doo ko takk nag doo ko takk boo koy takk ñu may takk boo ko takkee ñu takk ma def ci kees xam naa ne li nga bëgg bu ma la ci toppee nii nii nii fii du ma àggali weeru koor gi xam li ma gën déglul rek déglul déglul. loolu da nga xaw a compliqué. franchement man lii man xaw ma mais yow yaa bàyyi ba ne deux jours la koor nga takk ma bàyyi ma def lu ma neex imposé nga ma ay yére olof ba ma bàyyi woon ba ma laal samay jiin yu wow kongu bee defal la ay toq oo laal la ay taloo di def biir ci kër gi ni nga ko bëggee non loolu moom corps validé laa la bëggoon dafa waaye nga ne ma ay yëre olof ay du nekk lii lépp euh, euh, buur géwél moo ma moo ma moo ma tooñ moom mi ne ma euh, foo fawsu ñu ma génn la yóbbu la fii waaw fii ma la andi xam nga ne mënoon nanoo bàyyi ba nu woor ba ot arrêté lii loo wax ci li gawe waalo nag laa ko jëlee du gawe fenn fu dul waalo waaw gis nga ñoom li nu yor ci jom buñ ko goowee musiba am <laughs> waalo waalo boo ko déggee mm. ah ñoom danoo lamboo jom. dëgg la waaw ndax gooyo gi boo gisee mag ñi ah ah, ah ah da li nga yëlëb. xoolal te ma wax lu ci neex xoolal. xam naa nag dina woo oustaz laaj ko goowe lu ci lu ci wax ci weeru koor ndax. waaw xam nga ah, goowe mag ñi boo gisee ñu fonkoon ko ci seen néeg yi. Mm. Ah, mag ñi booba danga daan dugg ci kër mag ñi waaye da daan fekk sunu yaay yi dañ daan lay. lay seen bi ah, biir néeg yi hmm. booba silvissé nañ axakay ah, booba silvissé nañ mag ñi dañoo silvissé woon booba goowe goowe lu yàgg ci réew mi la hmm. moom goowe gi daa xëyul xëy rek ñëw fi dafa yàgg ak mag ñi waaw boo gisee ñi mag ñi ah, fonkoon ka cuuraay yëpp mën nga kaa jël mélange ko waaye moom goowe waaw moom dafa naturel dafa spécial waaye lii nag da nga koy bàyyi ba nu dog ak jàmm heure bii du heure ab goowe da ngay xamee heure yi heure bii ñu ngi ci deux heures mooy amul problème deuxième mooy kenn du ci goowee nit. waaye bu ñu dogoo ba pare nag lu ma def dagan na. waaw loolu da ça dépend. ah baax na ndig daal maa ko moom te lu ma neex laa ci def maa ngi dem maa ngi ñëwaat. léegi maa ngi ñëw léegi tey loo bëgg a dugg ci wàññi. boo yéegee mu war la ko. di nga rek. hôtel Calao du Lac au plaisir des femmes Glam Glam Couture. Thiaw application. ñoo leen doon may kooru Mame Rane ak Collé.